billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim saddi lisaani nawi janaani safi amaani wasid balaay mbokk internet yi baaxoo di seetaan seen télévision man ma woon Noreyni TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ziar xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké saa borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér di ziar ki nga xamante ni moom moo nekkal sëriñ Touba fii si Thiès di Serigne Saliou ture suñ borom bàyyi ko suñ kanam te mu ànd gudd fan ak weer boo leen gisee mbooloo mi sama ginnaaw ngeen xam ni ñu ngi si wàccaayu ziar bi ñu war a amal fee kër Serigne Saliou Touré si kanamu ndongoom yëpp bi nga xamante ni yàgg nañ ko amal chaque année muy fédération bi nga xam ne moo boole mboolem étudiant ak élève fii ci Thiès le temps boobu dañuy daal di dugg rek jëm leen a tegtal li fi jot a xew le temps ñuy àgg jàkkay murit mbokk yi ñu leen ko waxee woon sànq rek euh, mu ngi mel ne ñu ngi taxaw ak benn membre si daara ji muy jëwriñu cuisine di Serigne Abdou Lahad dañ koy daal di dékk suñu micro ndax du ñàkk mu wax ñu ana naka la waajalee ziar bi ak naka lañ koy dundee nii bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp di rafetlu seen teewaay ci waañ wi. Euh, di am contentement bu baax a baax di leen xamal nag ne waa cuisine moom ñoom waajtaayu mucc ayib lañu la ñu waaje te itam bi ñu ñëwee ba léegi wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci liggéey bi bu baax a baax taxawaay biñ ci war a am yëpp ñu ngi koy am euh, te itam euh, lépp luy seen man-man rek ñu ngi koy def te gëm nañ ne incha allah Euh, lépp dina baax incha allah ñu def la tout ba ni ko sëñ bi bëggee rek euh, ñu di ko ni defee waaw ndaxte sëñ bi euh, am yëg-yëg bi dafa am solo te lii di xidma dafa doon loo xamante ni du ay caaxaan du lu ñëpp man ba ku ci yàlla dimbali nga nekk ci dafa am ab nekkin boo xamante ni moom nga ci war a nekkee eh, te itam jàpp nañ ne wax dëgg ñi ci àndal nekkin boobu noonu bu rafet wax dëgg fa yàlla ñi ngi ko ciy nekkee. Eh, ba eh, lépp loo xamante ni daal mooy li nga xamante ni ñi ñu ñi ñu jiital noonu lañ ko bëggee wax dëgg fa yàlla ñun dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ba lépp jaar yoon ba lépp neex. Euh, ceeb yi niñ koy bëggee muy neex mu ni mu ni neexee euh, lépp daal mu jaar yoon daal wax dëgg fa yàlla loolu rek mooy suñu yéene euh, te it ñu ci sàkku ngërëmal sëñ bi di ko sàkku bu baax a baax di itam di sàkku ñaan ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ñu jiital ñu ñuy gën di sànni ñaan bu baax a baax di leen di wàcce samay kàddu foofu di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen teewaay ci commission cuisine jërë ngeen jëf. muy mel ni ñu ngi taxawaat ak kenn si jëwriñ yi di adjoint bu cuisine muy Serigne Ndongo dañ koy daal dékk suñu micro rek laaj ko ana naka la waajalee ziar bi ak naka la ko gisee bisimilah jëwriñ. waaw bisimilah asalaamaaleykum. waaw ziar bi nag waajtaay bi moom def nañ ko ni mu waree ak suñuy jëwriñ suñu jëwriñ Abdou Lahat bi ziar bi commencé woote na fi ay réunion réunion pour cuisine gars yi waxtaan ci. bu loolu weesoo tamit bilan bi muy defar ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci moom muy man ak soxna faatu Ndiaye da ciy waxtaan ak ñun ak suñu Alioune Bey mi nga xam ne mooy suñu mag di ñu doxalan ndax Abdoulaye moom wax dëgg yàlla dafa yaatu noonu la yaatalee liggéey bi te xitma moom daa doon loo xam ne wàllum moom il ñu ciy waxtaan pour mën a jaar yoon ndax dafa bokk ci li yor moo tax bu affaire yi commencé rek day waxtaan ak ñun ci lépp ni mu war a demee ñu mën a xool nuñ koy tëralee def lépp noonu daal lañ koy doxalee ñoo ngi ñaan daal yàlla kàttanal ñu ba fan bëgg àgg liggéey bi ñu àgg fa ñu ngi rafetlu nag ni ngeen taxawee ci bés bi ak ñi jox ci suñ ginnaaw yëpp di xam ne nag jiitu yomb na yombul sans dépend ci ki la féete ginnaaw ki la féete moo la mën a yombalal ni nga jiite en tout cas daal ñoo ngi rafetlu taxawaay bi macha allah jërë muy mel ne ñi ngi taxaw ak soxna Ndeye Anta di mag si daara ji ginnaaw Serigne Alioune Mbaye ñëwul mu daat ko fii teewal du ñàkk moom tamit ñu jox ko suñu micro ndax boobu ba tey mu ngi si waañ bi. Euh, laaj ko ana naka la waajale ziar bi ak naka la ko dundee bismillah soxna. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu leen di ziar bu baax a baax di kontaan ci bisbi bi bi li ñu dajale fii tey di ci sant bu baax suñu jëw yi ñi nga xamante ni ginnaaw si yàlla tey ñoom ñoo bokk si liggéey bi waaw di sant rek ñun moom ay yaay faal lañ rek ñoo si waañ bi comme ni ko suñu jëw yi ñi eh, ni ñu fiy nekkee ñu àndee koog ñoom di sant tamit soxna yu baax ak suñu jëw yi ñi macha allah ñu neex a nekkal lañ fii su ma xas su ma xasee ba gis xoolatuñu gisuñu lu ma def baax na te loolu yëpp du sunu njàmbaar suñ tawfeex sëriñ bi rek la ñu koy sante bu baax nag di leen santee ñëpp di wax ne ñoo ngi fii añi noppi na ñu koy jël si ñëw nañ léegi nag su ko defee nag ñu daal di sangu yeesu daal dem jàkka ji àggale foofu liggéey bi sant nañ leen bu baax a baax a baax. macha allah soxna si kàddu yi rafet na torop ba tey noppeeguñu ñu ngi taxaw ak tamit kenn si membre yi di soxna Fane Ndiaye ñu fas yéene ko dégg suñu micro. laaj ko ana naka la dundee wàccaay wi. salaamaaleykum maa ngi ziar bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall di tàmbalee rek di nuyu suñu jëwriñ ñi fi nekk yëpp. ndax daanaka ci jotaay bi bokk nañ ci ñu fi gën a xeebu ndax bu ngeen gisee gis nañ ni ñoo ngi nii ci liggéey bi ci ci subaak léegi te bu ngeen gisee liggéey bi nu muy doxee ngeen xam ni changement am na si ndax daanaka heure bi daan na fekk sax liggéey bi di soog a tàmbal waaye bu ngeen gisee xool liggéey bi nu muy doxee xam ni avancement mu ngi am bu baax a baax te ñoo ngi ñaan liggéey bi saa su ne muy gën a jëm ci kanam te incha allah day gën a jëm ci kanam bu bu ko defee suñu jëm bu ñu waxee woon pare rek daanaka kàddu gi du mu gën a bëri ñu ngi koy tuubaat bu baax a baax a baax jaajëf macha allah soxna si kàddu yi rafet na trop kon bu ko defee dañu daal di xaar si ay waxtu yu néew rekk ñu daal di dem si jàkka ja jéem a kii lu fa am. ziyaara